man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi fii ci HDP religion da ngay fii ñu wax sabone boo noppee ña teg ci kolos bi kon mbokk yi noo ngi tollu woon ci jeexantaluk atte googee nga xam ni moo daaneeloon moo jeexaloon guerre ba muy attek atteb mm, Abu Muusa Ashari ak Amr ibn al As ñu waxante la waxante te la ca xew-xew ca bi ñu dellusee ci Alioune ba xibaar ko ko ana nu situation Aliou deme ak waa këram muy ñi ñu tudde ay xawaarij te ñu toppoon ci ginnaaw Aliou te ginnaaw bi ñu weddi ko euh, ba weddi googu moo dox ba ñu rey xalifa bi Seydina Alioune radiyallahu anhu kon mbirum xawaarij yi bi aliyun yabalee abu muusa al ashari yi ngir atte ngir atte boobu ñu waxante xawaarij yi dañ koo gën a dañoo gën a taral seenu weddi ko te te kat fekk ne dañoo mel nu ko xër ci moom lool ci njëlbeen wedd nañ ko nag ba àgg ci sax ne ab yéefar la ibnu xaldoon mi ngi wax ni ku ñu wax zuraa ibnu al burj Taa'i ak Xorqoos ibnu Zuhayr as-Saadi ñëw ci moom ni ko tuubal ñaawteef bii nga def te bàyyee àttewu bii ngay àttewu te génn ñu dellu ca suñ noonu yee xeex ak ñoom Aliyu ne dañoo bindante ab dañoo dañoo bindante siñante ba noppi coloré bu seq ak ñun bindante nañ ak ñoom seq ak ñoom coloré gu ñu wax ak ñoom xorxoos ni ko loolu yi ngeen def bàkkaar la da ngeen ko war a tuub Ali ni ko du bàkkaar waaye lot la ci xalaat ñu daal di jógee fa moom nag tàmbalee woote di wax ni laa xukma illa lillah ba benn bés Seydina Aliyun di xutba ñoom ñëpp ci jàkk-jàkk jëpp di riir ñu maase di wax baat boobu laa xukma illa lillah ngir jublu ko wet rek foofu Aliyu ne allahu akbar baatub dëgg la de waaye jubluwuñ ci dëgg ñoom ay caaxaan lañ ci ñu waxaati loole ñu waxoon ba ga mu ni li ma warloo ak mooy duma leen tere jàkk ji li fekk yéen a ngi ànd ak noonu seenub cër ci alal ji duma leen ko tere li fekk yéen ngi fi li ma warloo ak mooy duma xeex ak yéen mukk te du yéen a xeex bi bu boobaa nag nu xool nu nuy def ak yéen benn bés ginnaaw loolu nag la Seydina Aliyun xutba wax ak nit ñi waxtaan ak nit ñi wax li ñaari àttekat yi def lañu àtte it mu dàq ko yedd leen te it daldi woo nit ñi leen nag jóg leen ñu dem saam jihaati ak ñoom daal leen di jàppal bisu altine boobu altine ñu war a génn ñu ñépp mu yable ci ibnu abbas ma ko nekkaloon basra ngir mu waajal ger boobu mu dajale nit ñi ngir ñu dem saam ngir xeexe ak ñoom mu bind bataaxel xawaarij yi xamal leen di leen li ñaari àttekat yi àtte woon dëkkooruñu ci dañu ko del lu ñu delloo la dogu na it nag ci dem saam ngir woo leen ci ak ànd ak jaayante ak dajale mbooloom jullit bi daal di wax xawaari ji leen ngeen ñëw ànd si man ngir xeexee ak ñoom waaye ñu bind ko bataaxal ni ko yow meraloo yàlla sa bopp ngay meral bu fekkee seere nga ci sa bopp ni yéefar nga ab yéefar nga nangu nga kéefar nga nangoo tuub kon danañ xool suñu diggante ak yow bu dul lool ba ñun ci yow dara génn nañ ci yow ba mu jàngee ba Seydina Ali jàngee seen bataaxel boobu nag dafa daal di naagu nag ñii moom kon duñu dëpp duñu duñu dëppati léegi daal di dogu moom ci dem saam génne koofa dem ca béréb ba ñu wax ak nu xëy la ak mbooloo mu bare bare bare moo xam dinañu mat juróom benn fukki junni nit ak juróom ibnu abbas yónnee ko lu mat ñetti junni nit ak ñaar téeméeri gawar ci waa basra ali un jóg waxtaan ak nit ñi soññi leen ci jihaad ak muñ ci buñ dajee ak seen noonu yooyu yéen na dogu na ci dem saam waaye bi mu nekkee ci loolu yi dégg ñu ne ko xawaari ji ñu ngi ëppal ñu ngi yàq ñu ngi dogale nit ñi di nangu seen i alal ñu ngi tuur deret nit ñi بكون سنين جتري عبلاي منك دوم خباب منكون بكون صاحب ينتم شانسون عبلاي ابن خباب نرايكو نكو جاب موك شوخنا نيو عند تبو شوخنا سدف أمبو نيو كيو كان من منا عبد الله ابن خباب عند دوب ينتبي صلى الله عليه وسلم لأن دي دي تيرلو جن نيو نكو أمول سولو لكن نت لنو لو ديجي تسا باي مو ديجي كو جيان dégg naa sama baay muy wax ni dégg na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni fitna dina xew te kanam joo xam ne de aji toog yi moo ci gën ka taxaw ka taxaw a ci gën kay dox kay dox a ci gën kay dox mu ngi loolu mu ngi nekk ci leen loolu dégg naa ko ci sama baay mu wax ko ñu laaj ko mbirum Abu Bakar ak Omar ak Ousmane ak Ali ku ci ne mu wax ci aw yiw ñu ne ko yow ci ñi topp nit ñi ci topp nit ñi seeni tur nga xam ne dangay dégg ñu ne diw rek nga di ko réer ci nga bokk yow nekkoo ci dëgg daal di koy rendi rendi jabaram butti biiru jabar ja rey ñett jigéen ñu bokkoon ci gërub tay loolu nag bi ko Seydina Aliyun déggee mu naqari ko lool mu yónni ci ñoom benn waay ngir xool ba xam ñu ko wax nu mu ñu rey waa jooje mu nit ñi nag tiit ni waaw ñu fi bàyyee ñii dem saam bàyyi dina suñ njaboot gi mbaa duñ def lu mel ni ci suñ njaboot gi daal di ñoom ñëpp ñu maase ne Seydina Ali li gën mooy nga jëkk leen di jënd seen biir ba noppi boo noppee ci ñoom nag doog a wéyal jëm gi nga jëmoon saam Aliyun dëppoog ñoom ci loolu daal di dox jëm ci ñoom ci biir bu ñuy wax Nahrawaan Nahrawaan Nahrawaan lañ nekk yabal fa ci ñoom ku leen wax ni leen jox leen nu ñi rey suñ mbokk yi nu bàyyi leen ñu ne ko nun ñëpp ko rey nun ñëpp daganal nañ seeni deret ak seeni deret yéen deret ñi ñu rey ak seeni deret yéen dafa dagan ci nun bu ngeen dee fay nun ñëpp ngeen dee fay nun waaye ñun ñëpp ko rey Aliyu ñëw ba jege leen waar leen ragat tiitloo leen waaye tontuwuñu lu dul ne bu leen ton bu leen wàqante ñoom bu leen leen tontu waaj leen rekk ngir daje ak seen borom ñoom li ñuy nekk nekk ci ay caaxaan dañoo dëgëroon jàpp ni ñoom ku ci faatu rekk aljana ngay def direct daldi ñëw sàppe fas yéene xeex ali yun digal abu ayub al mu yëkkatil xawaarij yi raayab kóolute sécurité ni leen raaya bii de ku ñëw ku ci ñëw rek am nga sécurité bàyyi nañ la ku dëpp dem koo fa it am jàmm ñu ñu bàyyi la ndax soxla wuñu leen amuñ benn aaju ci yéen budul ñi rey suñu mbokk yi ngeen joxoon ko ñu rey ko ba waxee loolu mbooloo daal di dëpp bàyyi xeex bi ñuy ñëw ci raaya bi ñee dem koo fa dëpp ñu wax nañ ni junni junni nit ñoo fa mujj des am ñu ni junneeg ñeent téeméer am na ko yóbbu ba ñeenti junni waaye ñëpp nag ñu rek riitandoo wut si àll yi aadi wax ay àndandoom ni leen leen ni leen leen seen bopp ci ñoom ba te dara bu di ñoo jëkki ger bi ñu ñëw rek songu leen doole di wax laa hukma illaa lillaah aywa gontu dem aljanna arrawaax arrawaax ilal janna daal di ñëw rek dal ci kaw Seydina Ali ak mbooloo ñu àndoon ak doole ah, léegi Ali ak ñi mu àndal bi pexe amul ñu jóg ñoom itam buur dal ci kaw sànni leen ay fet caw leen ay jaasi ba ñoom ñëpp wenn waxtu ci lañ leen alak mel dañ leen di mootoo rek Seydina Ali ñàkkul ci mbooloo mi lu toll ci ay juróom-ñaari nit mu daal di laxas bëggee jàll saam nit ñi jàmbat ko ni ko nag li ñu doon ci fett ak i xeej dafa jeex te sonn nañu li ñu bëggoon mooy delluwaat koo fa ngir waajal ko beneen yoon waaj waajtaay wu yees ndax ci la ñu gën a mën a amee kàttan ci xeex waaye Alioune ànd ak ñoom ci loolu daal di wàcc ni leen bu kenn dugg sa kër ndare bu dañoo dellu ba xeex dañoo dem ba saam ba xeex ak noonu yi mu taxam jóg ba noppi waaye fa nu wàcc fa ñu wàccoon rek ñoom noonu lañ doon rocc ci guddi gi di dellu seeni kër bàyyi armo bi mu wéet ñu jekk ci gis mu wéet lool ndax mbooloom bari dañu rocc ko dellu aajo bi mu gisee loolu nag la dugg si sa koofa woo leen waxtaan ñoom waaye ñu ñëpp ñu lànk rek kon daanaka dem gi Aliyun waajaloon yoonu ñaareel ngir bëggoon dem saam far xawaari jooju gàllankoor ko bañ yam ci ñoom ba tey loolu moo dogalewaat rek demu Seydina Aliyu gi cosaan noonu kon misra ak basra ñaari dëkk yooyu lu fa xew léegi ca misra fitna ja daal dafay jàq ko moom itam ndax Muhammad ibnu Abi Bakar la fa Aliyu tegoon waaye yee ginnaaw bu ñëwee ni ko yaay xalifa bi mu ngi tàmbali moom itam di lijjanti yónnee misra yónnee fa sax Amru ibn la fa yebal boole ko juróom benn junni nit ngir mu foqar ji ci foqar ci misra ci loxo yi Muhammad ibn Abi Bakar jàpp na ne bu ci jotee dana gën maa dimbali ci li muy lijjanti ci xilaafa gi ci alal alal yam fay jëlee yu mel noonu noonu la Muawiya yabalee Amr ibn al-Aas mu ànd ak juróom benn junniy nit léegi Muhammad ibn Abi Bakar ba mu déggee loolu xam ni it loolu du mën a jàll ba mu sàkkee pexe te jàllut kam yabaloon mu wëlëjeek ñooña ñu rey ko dafa daal daw moom dem làqutu ji moom moom moom Muhammad ibnu Abi Bakar waaye ñu dàq ko ba jàpp ko ñu wër ko ba jàpp ko dugal ko ci biirub ab mbaam lakk ko noonu lañ doxee ak moom Ali bi mu déggee loolu tiit tiitaange ju tar loolu metti ci moom lool mu waxtaan ak nit ñi woo leen ci bëgg ñu ànd ak moom dem xeexee ak noonam yooyu waye rek ñu gàntal kenn top ko ibnu abbas habla ibnu abbas mo ne kon ci basra nek fi wali ci atum ñen fuk la taggo ak ali jun dem màkk la ko waral moy ibnu abbas da fa romb abul aswad yedd ko ci mbir mu mu xewon abul aswad bind bataaxel ali jaxase ko mom ne ko ibnu abbas alal ji mu yor fii ci Barça nu ko neex la ci doxe Aliyun bind Ibnu Abbas lettre di ko laaj loolu Ibnu Abbas tontu ko ne ko liñ la wax dara du ci dëgg alal ji lépp takk naa ko sàmm ko teg ko ci aw yoon Aliyun bindaat ko bataaxal ni ko léegi dama bëgg nga leeral ma li nga ci jël ak foo ko jële ak loo ci def ak noo ko defe ak lu ci des audit boobu nag naqari Ibn baas mu ne ko ni ma la gisee li ñu la wax ci man jàpp nga ko ci ni damaa jëlaat poste bii nga ma joxoon nag seetlu ku la neex nga teg ko fi man maa ngi dem noonu la demee màkk am na ci riwaaya sax ñu nett ala jëla jël yóbbu ko màkk waaye loolu allahu alam moom audit boobu bokk na ci li ko merloo ba tax mu bàyyi aliyun dem màkk toog li sabab rey gi nag dañoo wax ne Abdurahmaan ibnu Muljam ak ku ñu wax Alburak ibnu Abdillah at Tamimi ak Amru ibnu Bakar at Tamimi ñett ñooñu dañoo daje fàttaliku seen mbokk ya ñu reyoon ci waa ca daldi leen di sàkku yërmande daal ni waaw lu nu fiy def seen gannaaw bu nu mënoon a jaay suñu bakkan yii ñett ñu réer ñii ñett ñii fi andi réer gi muy aliyun ak muhaawiya ak xamrun xas ñu rey leen kon de danañu noppal nit ñi ci seeni biir te it mbokk yañu rayoon ci naxarawaan it deret seeni deret danañ ko fayu Abdurahmaan ibnu Maljam ibnu muljam fekk ne mu am jigéen ju mu gisoon ci bani tamim ñu di ko wax xataami moo am ci moom ak cofeel loolu bëgg ko labat ko jigéen ja ne ko danga ma mën a takk waaye ci ñetti sart ci sartu ñetti junni dërëm nga ma jox ak rayal ma aliyu bu mu joxee ñetti junni rey aliyu daal loolu mooy can gi te jigéen jooju it daa bokkoon ci xawaari ji wax nañu baayam ak mbokkam yépp dañu leen rayoon ca bisub naharawaan abdurahmaan ibnu muljam ñaar yooyu bi mu dëppoo fekk ni mu bëgg jigéen ji mu sartal ko lii mu wax ak ñee moo tax mun leen man maa leen di rayal ali maay féetewoo ali kañ wax alburak ni leen man maa féetewoo muawi kañ wax amru bnu at tamimi yi ni man maa féetewoo rey amru bnu noonu lañu waxante jàpp lañ jàpp fasante ko ibnu mu jëm dem guddik aljumaa ci jàkk ca fanaan fa jaakaarloo ak fii Sayyidina Adi yun di jaar di génn ngir julli si bunt bi muy jaare ngir julli si mu jàpp foofu jàkkaarloo foofu bi Adi yun génne di woote ne ay julli julli julli ibnu mu jëm daldi koy caw jaasi ci jëba ñépp yoo daal koy caw nit ñi yooxu mu daldi taw ñu dàq ko ba benn waay bu bokk ci waa xadra mawta moo ko jàpp nit ñëpp ñëw yeew ko ba mu dëgër aliyun wóotal ku ñuy wax jaada ibnu ubayra doomu mbokkam mu jigéen mu umu haani la ab jarbaatam la moom la jiital mu julli mu jiite mbooloo mi julli aliyun ni leen bu ma dee na ngeen moom képp comme ni mare bu féké nak dundat na dana xam ni may doxé mom wax nañu ni foofi jund ibn abdullah laaj na ko ni ko ndax bu nu la ñaké asan la nuy jaayantel ali ni ko duma len ko digal duma len ko tere lolu mom yene sét rek seen bir la nonu mu wa hasan ak xuseynu denk len ni ma ngi len denk ragal yalla bu len bëgg sàkku àdduna ak donte àdduna sàkku na leen yéen bu leen naqar lu dara lu leen raw ci àdduna dee leen wax dëgg te yërëm jërëm yi tey dimbule ku tumuranke di jàppale ku ñu tooñ di jàppale ku ñu tooñ te ka tooñ ngeen weddi ko ku mën doon bu leen ànd moom na ngeen jëfe li nekk ci alxuraan te mbirum yàlla bu leen ci kenn mën a xoqatal bu leen kenn mën a yedd ci loo xam ne lu neex lu ngeen xool ba mu neex yàlla ngeen di ko def daa Muhammad ibnu Hanif Hanafiya ne ko yow itam dénk naa la loolu ma leen dénk ma lay dénk it nga wekk sa ñaari kilifa yii ndax ak ji ñu am ci yow ne ko bul def mukk dara te tàggu woo leen yëgaloo leen ko ñoom itam mu dénk leen doomam jooju muy Muhammad ibnu Hanafiya daal di delloowaat ndénkaat bi ci Xasan gën koo dolle dénk bi mu demee bay faatu nag la bind ndénkaanam bi nga xam mooy ndénkaan général bi ñëpp bokk daal di continuer nag di wax laa ilaha illa allahu ba di ruugi rocc ko fa radiyallahu anhu noonu la ibnu muljam doxee ak seydna ali ka ñuy wax alburak moom dafa taru Muawiya ci guddi googu ba mu génn di julli si mu caw ko jaasi ci ay toogukaayam njëkkikaay waaye ñu daal di koy jàpp yóbbu ko Amr ibnu Bakar moom itam dafa jekki taru Amru bnul ci guddi googee waaye Amru génnul dafa am dafa xawoon a wéradi digal njiitul police yi ku ñoo Xaarija ibnu Abi Habiba ibnu Amir ibnu Luay mu ñëw jiite si nit ñi noonu Amru bnul Bakar di koy daal di dal ci kawam ba rey ko caw ko rey ko waaye ba mu koy rey mi ngi jàpp rek ne Amr ibn al-As la rey bi ñu ko jàppee ba yóbbu ko ci Amr ibn al-As mu gis Amr ibn al-As dina waaw man kon ku ma rey ñu ne ko xaari jagare mu wax Amr ibn al-As ne ko wallaahi jot si ma ko woon kenn ku dul yow Amr ne ko waaw Amr nga soxla woon waaye yàlla xaari jala reylu daal di joxe ndigal ñu rey ko kon loolu mooy mu jóg mbirum xawaarij ji ak sayidna aliyun ak muawiya ak amru bnul kon ci bis yi jëm dinañ ci def waxtaan ci xawaarij yi waxtaan wu beru jàngat it li ñu dégg ci e, xilaaf ak amirul muminin ali ngir nit ñi gën cee mën a jëriñu di ñaan yàlla mu defal nu ak dégg ak topp asalaamaaleykum te man di jot video yu am solo yi bayiko fi ci HDP religion da ngay bes fi ñu wax sa abonné boo noppee ñi tek ci colosse bi